mbokk amateur yi waa Axlu Lamb. xew-xew bu mag am na. ay bis bu neex. lutte sans frappe lay doon. juróomi million lañ fa teg. na ñëpp ñëw. rendez-vous le 12 janvier le 12 janvier lan moo xew association des promoteurs ñoom looy delloo ndukkal euh, le ministre de sports Matar Ba. bu dee mas naa mit 70 ba léegi maa ngi ci làmb te mosuma koo dégg kon loolu. loo xam ne la Sénégal yëpp ko war a teewe man mbay Gouy Gui maa ngi fa le 12 janvier. stadium Iba Mar Diop na ñëpp ñëw sargal ministre des sports Matar Ba. ci woo ñëpp le 12 janvier incha allah rek ànd si association de promoteurs waaw ñun ñëpp ñu ngi doon gunge suñu ministre bi ah. di kontaan tamit ci promoteurs yi ñoom ñi nga xamante ñoo xool li nga xamante ni moom moo gën a rafet. ñu tuddee ki nga xam mooy ministre Matar Ba. ñëpp leen jox rendez-vous le 12 janvier ci drapeau Matar. Euh, jërëjëf monsieur le ministre. jërëjëf monsieur le ministre jërëjëf l'ensemble des promoteurs jërëjëf journalistes yi mu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant tey suñu porte-parole du jour Alioune Gueye damay profité ci occasion bi rek pour présenter leen vœu promoteurs yëpp ñaanal leen yàlla defal leen jàmm. yokk seen sutura yàggal leen fi yàgg yombalal leen liggéey bi barkeel njaboot gi barkeel liggéey bi ñu dugg ci année bu bees bi ci jàmm ak salaam jeexale ko ci jàmm ak salaam yàlla bu kenn manqué loolu laa ni woon danaa ko dugal comme introduction xamal leen ni liñ fi daje ndaje mbégte la ndaje teranga la ndaje euh, delloonte njukkal la parce que yàlla dafa def ñu bokk tool bi ñuy bayee ngeen doon suñu ay kilifa ñun ñu ne ci waar yi ngeen jox nu cër di ñu taxaw di ñu toppatoo ñu ànd ngeen namm benn mbir yeggee ñu ko ñu nangu ko ci nangu bu rafet ñu nit ci suñu xalaat ñu proposé leen ne leen ni loolu ngeen ñu proposé bëggoon nañ ci ànd pour seede askan wi yëpp di loolu ànd nañ ci yéen loolu moo waral drapeau bi promoteur yi teg tudde ko ministre bi muy drapeau wu ngërëm ak sant ak delloo njukkal te buñ ko ko joxee jox nañ ko l'ensemble du département. loolu laa ni woon danaa ko introduire jox Alioune Gueye mi nga xam ni mooy porte parole du jour kàddu gi jërë ngeen jëf. Euh, asalaamaaleykum euh, mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ñi fi toog ñëpp ku si nekk sa tour ak sa sant li commencer par monsieur le ministre euh, fierté la pour ñun tey promoteur ñu ñëw. toog ak yow euh, ñun dañuy wax toujours que ni euh, Sénégal yàgg naa am ay ministre de sports man yàlla dafa def yënguma ci làmb rek parce que vice président zone la mhm. waaw bon nawetaan dama ci nekk parce que yàgg naa ci trop bon gis naa mouvement nawetaan nu mu doyee waar mais doo toog ak nit nit mu contesté ministre des sports donc ce qui veut dire que ni yaa ngi ci voie bi nga nekk voie bu baax la dañ lay ñaanal yan bi aussi yàlla gën ko oyofal xam ne fii nga fii fii nga nga nga jaar yoon bi foofu la euh, fierté la nag pour ñun promoteurs yëpp ñu ñëw tey àndandoo hmm, jël suñu doolee suñu lépp ni dañuy tudde drapeau ministre des sports non seulement dañ koy tuddee drapeau bi mais ànd ak moom wan ko ni ko li nga soxla mooy arène nationale bee ñu def ay milliards dul jeex ba pare ñu ñu àndandoo dem foofu ñu àndandoo dem foofu donc ce qui veut dire que ni euh, euh, drapeau ministre des sports bi en même temps jubilé lay doon pour ñu tëjaale ko suñu euh, fii nga xam ni ku ci mas am problème bu ñu ñëwee ci yow ni la ministre ministre des sports ñun kat dañoo bëgg tëgg fii. noo mënti def toujours lu lu positif lañ fiy jëlee loolu aussi ñu ngi koy seedewaat fii amul benn promoteur bu toog fii bi nga xam ni mas nga am problème mu date non nga ñëw jàkkaarloog le ministre si sa problème réglé wul. dañ dem ba mujj gi dañ naan man man dama man personnellement man ministre des sports na ma ñu ne lu tax may leen. parce que soo fa jógee rek doo am problème soo soo demee jàkkaarloo ak moom ak loo jaaxle jaaxle boo boo boo fa jógee sa xel dina dal donc loolu dañ ko soxla trop ci sport. te si vole yëpp noonu la ñu ngi lay féliciter encore de passage si ci euh, ndob lu mag li Sadio Mané am ak li nga ci sumb yëpp euh, xam nañ ko yàlla na ko yàlla def barki yonent bi euh, suñu drapeau bi nag yéene la. Euh, suñu àndandoo bi aussi association bi ñu jiital si suñu président bii nga xam ni ñun ñoo jël buum takk suñu baat jox ko jébbal ko te rëccuwuñ ko waaw parce que njiit bu mat njiit la ku mat kilifa la waaw moo taxit ah dajale ay jeunes dajale ay promoteurs ñun ñëpp ñu bokk bëgg-bëgg lu jafe la ku si nekk tey dafa am li nga xam ne moom ngay wut ñun ñi ñëpp ku si nekk am na looy wut sa intérêt bopp la dañ doon wax promoteurs yi moo su ñoo mënu waruñu mën a daje parce que ku si nekk intérêt yi bokkul ku si nekk sa yëf da jël di sa kër mais tey moom mu ñëw nekk njiit gi ba pare sëgg raam nit ñi def leen lu leen neex président boobu lañu am. donc ñu koy gërëm monsieur le ministre par ma gën ñu ko dooleel gën ñu ko jàppaleel ci côté boobu benn crainte rek la ñu am ci aussi mooy si côté sponsoring loolu monsieur le ministre dañoo bëgg société yi nga xam ne ay société nationale la ñu nekk fii euh, war nañu mën a dugal seen loxo jàppale président ci ar bijou bii mu def fii parce que waruñuy tëgg ñuy jël seen alal di tëgg ba pare ñu am sponsor président nu mu koy defee mën na ni société bu duggal loxoom si sport en général du ma wax sax làmp en général ñu exonéré yenn taxes yi loolu dina leen permettre ñoom ñëpp di daw ñoo jàppale ñu parce que du yoon nga jël 32 milliards def ko fenn ba pare ku tëgg tey suba doo ñemee tëgg loolu monsieur monsieur le ministre ñu ngi la si ñaan di la si ñaaxaat bu baax a baax nga gën ñu ci dooleel gën ñu si jàppale comme ni nga ko daan defee. et eh, wax ji gudd na mais ñi ngi jéggalu encore ci kàddu yi di wax ni daal kontaan nañ trop ñëw fii aussi. ministre ministère bi aussi ñi fiy liggéeyee ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm parce que gis naa ni bu ñu duggee ci salle bi ku ci nuyu rek euh, président rek jaar nañ sa tur wax la ko te loolu dafa dafa am solo. waaw donc boo nekkee si biir kër njaboot gi yéene la jàmm loolu si kanam rek nga mën a jëm. jërëjëf président jërëjëf monsieur le ministre. monsieur le ministre am na fi nekk Khady Thiam moom ñu gën xam ministre bi parce que moom dafa ànd ak moom depuis Fatick. mais bokkul ci protocole bi. Ah, mais la bokk parce làmb lañ nekk. et di leen xamal mais làmb kay am na dina dimanche dana wax lu ko. Ah, mu mun a wax ah, ministre des fois il faut ñii ñoo tax directeur yi toog. parce que dafa am ay directeurs yoo xam ne daf leen. am ci ñoom confiance rek nga fi wax. directeurs yi nekk aussi suñu ay jëriñ wax mi ci somb doonay ma ba joxu war naa mun a ne. xalaat ca ka ko xam assiette ca ka ko xam. tubaab fakal la macha excellence de président Macky Sall na nga yàgg ak moom lool. 2005 ba 2020 dafa yàgg. 2012 nga tax la mu am ca Fatick am ko ci Sénégal nga bokk ci. ñu dem élection locale mu métti lool nga gagné kon nag mu def la ministre des sport et comme j'ai si l'habitude de le dire vous êtes le 23e ministre et vous êtes l'un des meilleurs ministres des sports dama leen waaw jéeri ko li wàq ma ci somb doon nañ ma ba joxu ba ndari la ñuy wooyee sa maam Matar la ñuy wooyee sa maam moom lañ la dippee waaye Abdou Ba la ñuy wooyee sa baay aji as Diouf la ñuy wooyee sa yaay Selbé la ñuy wooyee sa papa sa ñepp sa yaay Diouf sa ñepp ma ko sa kër dama ne fii na ngi ñëw Sénégal a ñëw ñëpp ngi ñëw te nag <laughs> xoolal macha allah démb conseil des ministres am na waaye wute naa yenn conseil des ministres yi tubaar fakàlla macha allah félicitations dëgg dëgg la xam nga xam nga xam nga li muy wax nii fa mu ko war a waxee bu ko waxee lay ëpp cër mais fii république bee ko moom salle bi ñu nekk du saalu APR du saalu PDS saalu sénégalais yëpp la dafa am loo xamante ne bu ñu dajee ca làmb ja boo ko waxee dana dana dana nekk dana tegu ci yoon mais fii damay éviter toujours muy am extrapolation yooyu parce que nous sommes dans un lieu de la République et il un comportement républicain qu'il faudra avoir nit ku ne nag boo xamee sa cosaan bu ñu ko waxee dina la neex waaye bàyyi naa ba mu def ko pour beneen yoon même bu dee làmb li ñuy def c'est à caractère républicain parce que c'est un ministre que les promoteurs sont venus voir donc il faut ñu bàyyi ko mu jaar ci canevas yi républicain yi dañu dérailler te bu ñu dérailler dañ day retourner suñu kaw parce que dinañ am fuñ ñu jàmm te nit danga war a fexe ba kenn du la jàmm Euh, donc maa ngi lay sant di la gërëm loo xam nga xam naa euh, dinañ daje feneen ak feneen foo xam mun ngaa wax ba géex su ko defee su ko defee boo ma yëngalee sax ma génnee dara joxe mais xam nga fi ñu toll nii fi ñu toll nii ñemewu ma ko def parce que soo ko defee it day wëlbatiku sa kaw te pourtant suñu cosaan la kon maa ngi leen di sant ci ñëw bi di sant Mbaye Jacques maître de cérémonie di nuyu le président Diouf de la presse sportive di nuyu le SG de du ministère di nuyu aussi le nouveau directeur de la haute compétition monsieur Senghor di nuyu monsieur Fall bi nga xamante ne c'est le nouveau directeur des activités physiques sportives di nuyu madame Diallo la directrice de la formation kii moom war ngeen liggéey ak moom pour euh, wax naa ko làmb ji il faut que nit ñi di daje di def ay séminaire di waxtaan ci charte yi làmb ji su ko day tax coow du am parce que nit bu xamee du coow des fois coow yu bëri ñàkk a xam li làmb ji wax la sax doo ci xam lu bari euh, ak yeneen discipline yi le directeur des infrastructures moom xam ngeen ko monsieur Sall le directeur de l' administration générale et de l' équipement monsieur Ngom Niang et ak Latif euh, le conseiller en com comme euh, nekk ci wetu Mbaye Jacques ana le conseil occulte là je le vois même pas non non je parle de Bousso Bey là donc ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu la presse sportive di nuyu nos amis promoteurs et nos frères euh, ku jigéen ki ci nekk ñëwul Ndeye Ndiaye xam naa xanaa day seetu ah ok maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di am mbégte recevoir leen defe naa ne suñuy rencontre amul formalité seen une rencontre d'amis une rencontre de sénégalais ñu xam fu ñuy teg seen tànk moo tax suñu gisee yomb am nga gisee moom ñi war a gisee ku ci nekk bu xamee li tax gisee bi am ñu bokk jëmukaay du am leen lu xejam ci gisee boobu c'est vrai que quand ne est ministre bien responsable quelque part on reçoit n'importe quel type de personne on reçoit n'importe quel groupe de personne des fois nga recevoir ay nit boo waroon a dund téeméeri at dana ci wàññi juróom parce que naqar nga cee jëlee wala da ngay souffrir le temps de l'audience mais yéen bokk leen ci quelles que soient les difficultés soo leen di ñëw ku nekk dina liir ci seen kanam ne mbaax ngeen di andi ak rafet njort te defe naa ne loolu loolu lu am solo la li ngeen def yombul vous avez donné une leçon à l'ensemble des Sénégalais vous êtes des privés chacun pourrait faire lu mu bëgg a def te du wéeru ci kenn mais loolu lépp da ngeen ko teg fële dajaloo nekk benn bu Pape Abdou di tëgg ñoom Assane ak ñoom Fallou ñii ngay gis ñuy jaay billet di dugg ak génn président bi bu keneen di tëgg moom ouvrier lay nekk. waaw mais Sénégal ngeen foog ne bu ñëpp doon def noonu coow dina am ci réew mi coow du fi am nit ku nekk di nga wutal sa bopp te di nga bokk ak nit ñi réew mi parce que li tax ngeen ànd pour coow du am réew mi la mais ku ci ne li ngay am yaa ngi koy dugal sa poche mais cette solidarité dans la concurrence aussi. Ça, c'est une leçon à donner à l'ensemble de des des des parce que nit yàlla bu leen boolee te ngeen mënoon a juddu ba génn àdduna te du ngeen xamante mënoon ngeen fi nekk ba dem du ngeen nekk ay promoteur am na ñoo xamante ni lii la ñu nekk ñi nekk leneen mais yàlla leen segg ci nit ñi boole leen ci benn nattu boole leen ci ngeen bëgg benn affaire li tax ma ne nattu mooy li ngeen di def du forcément la leen di andi xaalis mais amour bi ngeen ci am nattu looloo war a tax nga xam ne mbokk ngeen war a nekk par force mais pour mu am il faut ngeen am njit mu koy impulser Pape Abdou tout le monde sait que c'est un ami c'est un frère yàllaa ko dogal du maa ko njëkk a xam waaye leer na ma ne mën naa ko woo heure bu ma neex te moom itam woon na heure bu ko neex daf may woo d'ailleurs sax des fois mu romb ñu ne Matar Ba romb foofu je moo tax ma wàññeeku tuuti pour que ñu mun ñoo ràññee maa ngi yow <laughs> parce que des dañuy dañu jàpp man la xaw ma trait de ressemblance lan la nag mais des fois ma romb fenn ni ne Pape Abdou Fall man leen dem leen wëri ko du moom mais kii ministre des euh, donc da ngeen nekk nit ñoo xam ne da di compter ci li ñuy def muy le développement de sports plus particulièrement de la lutte qui est notre fierté parce que c'est notre discipline ngeen nekk ci di ci góor góorlu sans yéen il ne pas y avoir de combat vous au début et à la fin du développement de la lutte heureusement vous l'avez compris comprendre ngeen ko bu baax a baax ba ba bu méttee du ngeen bàyyi ne kenn daw fi ku nekk dund na fi loo xamante ne boo bu fekkuloon nga bëgg yëpp yi am jom nga bàyyi toog defi leneen man loolu xam naa ci dara parce que nag euh, ci dëkk bi laa dëkk te jaxasoo naa ak yéen des fois nit di dem damay toog fii am yërmande ci moom parce que damay xam ne li muy defi nii yëpp coono rek lay nekk. waaye mu ngi bëgg a bëggal ay millier de sénégalais yoo xamante ne bu amul ñu am naqar moo tax bu fekkee ne ku bëggal nit ñi dem àjjana yéen a jiitu àjjana parce que coono bi bari na perte te bàyyiwu leen yéen a ngi ci. kon maa ngi leen di sant di sant Pape Abdou di la encourager je sais que c'est pas facile d'être dirigeant surtout ni ngeen bindoo mais fexe nga ba tey xeeboo kenn ci ñi toog fii parce que koo fi xeeb mu demal boppam réew mi moom bul sonn. kuy am ak ku am dépense ak ku amul dépense yëpp koo fi xeeb mu balaak say bagage dem yoonam mais boo yemalee ñëpp ku nekk nga jox ko sa cër ñëpp nekk say baay faal di la défendre di ànd ak yow def je pense que ça c'est ce que tu as fait et ça bu doon dañuy décerner diplôme mu manager dañ lay jox diplôme manager c'est pas facile c'est comme ça moo tax continuer noonu euh, moment bi difficile na mais jàpp naa ne fi ñu jëm pour tontu la doléance par rapport au sponsoring d'abord par escalier lay nekk ñu ngi liggéey benn code du sport boo xamante ne mooy déterminer li ngay wax parce que fonds bi ñu buj bëgg ubbi bu ñu ko amee képp ko am projet sportif te projet sportif tëgg làmb ci la bokk di nga mën a lever ay fonds def ci li ngay def ba pare delloo solon les modalités yi nga xamante moo fi nekk loolu bu ñu ci d'accord ba état bi d'accord ko ba mu jaar conseil des ministres dem assemblée nationale ak yëpp ba mu jàll ci la ñuy dugal li ngay wax ba nga xam ne y a des produits yoo xamante ne ku ko jaay daa am pour pourcentage bu ci dugg loolu day capter des fonds pour diversifier les source de financement pour ceux qui aujourd'hui on des projets sportifs donc foofu c'est un loolooy liy régler définitivement question mais avant loolu waxoon naa leen ko bi ma leen mujjee recevoir nee leen cibler leen ñi nga xamante ñoon bokk ci làmb ji man danaa jël ci sama jot ànd ak Pape Abdou Fall ak ñi mu war a àndal dem seeti ñi jiite kër yooyu defe naa ne bu ñu bu ñu defee loolu ñoom dinañ xam ne li ñu def fulla la ak fayda ñi ci mën a jàppale kilifa réew mi ba nit ñi parce que réew bu amul épanouissement day toj nit ñi ñëpp kenn mënul satisfaire seen i affaire waaye nag épanouissement gis nga ay concert ak ay làmb ak dafa bokk ci dundu doomu aadama parce que doomu aadama bu amul lu mu def toog rek ak ay jafe bu yàggee day exploser mais nit ki bu mënee dem ci li mu bëgg féexal xolam mais day tax yu bëri mu mën ko muñ pour mën a dem de l'avant moo tax mënul ñàkk ci ci ci ci ci bi moo tax c'est une obligation pour ceux qui investissent d'ailleurs dans le pays d'accompagner le secteur sportif parce que muy football ak muy leneen ak leneen a ci yem ñëpp dafa war a nekk obligation ñu jàpp ci pour gunge gunge gunge sportif defe naa nag loolu bu ñu fay dem il faut aussi ñu am taxawaay boo xam ne dinañ mën a convaincre ba liñ leen di reprocher parce que nit ku bëgg a daw day wut lu mu la taqal na ngeen fexe ba li liñ leen di taxal bañ a nekk parce que ñu bari boo waxee ñu ne na sponsoring te boo waxee ak ñoom li nga war a def duñu ko def mbëri yi boo leen ne solal a ba duñu ko sol boo leen mais yooyu leen taqal su ñu demee nag ba mën leen a capté waat il faut que mu am rigueur dans la gestion parce que li ma leen di wax loo gis dafa am charte et il faut savoir appliquer les textes loolooy tax d'ailleurs ñu respecté leen yéen ba tax ñi leen di jàppale du ñu am lu ñu rëccu mais aussi ngeen am poids sur acteurs yi mooy lutteurs yi bu boobaa yëf yi dina dellu si waat ci yoon ala kulli àlin les sponsors vont revenir ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix parce que la dynamique bi ñu nekk nii président de la république jël décision di investir dans le domaine des infrastructures sportives dafa nara pousser nit ñi ñu ñu ñu investir ci lu mel noonu surtout sociétés yu mag yi fi war a ñëw ak yooyu mënul ñàkk il faut que sponsor yi sponsor yi dellu si mais pour le moment cette année je me propose de vous accompagner partout avec de rendez-vous ci boo xamante ne mën na nekk ñu dem convaincre leen xanaa bu dara amul it robinet bu xanaa dina xel li tuuti bañ a tëj complètement bu mun rek ubbeeku complètement am lu toq tuuti ah su ko defee ñu mën leen a ñu mën ñu mën cee jàpp leneen li may wax mooy euh, décision bi ngeen jël defe naa ne làmb ji ngeen tëgg wax naa ko ci bare bari njàngat la parce que réew boo amee acteur yu bokkul gis-gis il faut ñu nangoo nekk dans la concertation waxtaan moo tax ngeen jël décision ne li ngeen ñu doon proposé pour ñu dem arène nationale d'accord nañ su waxtaan amuloon mënul am même bu ñu ko fermee parce que man li may bégloo du appliquer samay samay pouvoir mënoon naa xëy rek Ibamar kenn dootu fi tëgg c'est fini ñi bëgg a tëgg dañuy dem fële mais loolu daf dul loo xamante ne jàpp ma ne loolu ndam la ci ñun nit ñi nga bokkal mbir da ngay jël temps waxtaan ak ñoom ba ngeen déggoo te comme làmb ji déggoo lay firndeel loolu it leçon lañ la war a jox sénégalais yi ba xam ne ñi bokk secteur dañu war a waxtaan pour trouver des solutions yoo xam ne day arranger toutes les parties et ça c'est extrêmement important c'est pourquoi c'est un symbole tudde nañ ma làmb pour ne pas frustrer mon jeune frère et ami Assane làmb ju ne tudde nañ ma ko mais làmb ji jox naa ko fulla fulla gu fulla gu réer parce que communication bi ñu ci mën a def bokkul ak làmb yi ñu daan def bii ñëpp ko bokk mais dañ ci jàngal aussi sénégalais yi xam ne li ñu bokk dañ ko buñ ko waxtaanee rek du am benn jafe-jafe nit ñi ko comprendre moo tax euh, je voudrais saisir l'occasion pour féliciter aussi remercier la 2STV bi jël décision ñëw ne dañ koy wone en direct pour nous accompagner 1000 francs nag jox ma leen ko nga xam ne du ma leen dañ ko participer ci journée bi loolu mënuñ ñàkk gërëm El Hadj Ndiaye madame Ndiaye ak tout le personnel de la 2STV pour ñu ñëw ci làmb joo xamante ni làmb simple la loolu bokk na ci li ma gën neex parce que ñi ci nar a bokk ñooy bari sama mbokk séeréer yeeg ñëpp dinañ ñëw eh, dégg naa ne sax yokk nga mise bi trois ngeen ma xool mais cinq la waaw mais dina ëpp cinq il faut ñu def ko mu nekk loo xamante ne nii eh, nañ ko def six rek su ko defee mu yokk mu gën a neex ci mbër yi parce que c'est une fête. Il faut que les gens se sacrifient pour les autres pour que ça soit une fête de la jeunesse. Donc, je di santé ci loolu di inviter l'ensemble de mes amis et les Sénégalais sportifs. Li ma jaaxal mooy est dinañ fa C'est ça le problème. Donc parce que doon rendez-vous à tout le monde ici au ministère à partir de 16h pour que 16h30 17h parce que man bëgguma ñëw mu guddi dañuy ñëw bëccëg toog fa nag ba mu jeex pas ay ñëw toog nii dem dem man ku may gunge na nga ñëw toog ak man ba mu jeex waaye gunge ma ba ci stade bi retourné man ñeme naa ci yoon bi moom jàppantu si moom kuy ñëw na toog ba mu jeex ñu ànd ñibbi ku mënul it man danaa dema sama bopp te balaa ma fay jóge mu jeex parce que c'est ça aussi loolooy war ma eh, mérité nañ ko ñuy bëri mérité nañ ko mais geste bi promoteur yi def mérité nañ ko moo tax làmb ji ngeen ma tuddee delloo naa ko lu président Macky Sall parce que bu ma fi amee ndam moo ma fi teg su ngeen mu mënee liggéey ak yéen su ma faluloon fii dinaa leen xam peut-être waaye duñ sax liggéey bi donc lépp dañ ko koy delloo di ñaan yàlla yàlla defal ñu ci ndam yàlla defit bi ngeen koy def dafa fekk moom mu ne dialogue national defe naa ne yéen lii wane na ne dialogue national bi am na njariñ parce que dialogue moo andi lii ñuy war a def sam euh, dimanche le 12 loolooy wane ne Sénégal mënul tël lalu fenn lu dul ci waxtaan quelle que soit position nit ñi des fois sax nit ñëw jox la loxo mer ba du la xool waaye bu ngeen toogee waxtaan bu ngeen di ñibbi da ngeen du langaamu joxante loxo dem c'est ce qu'il faut faire il faut pas avoir peur de la discussion c'est la concertation qui nous mène vers les résultats positifs et je vous encourage en tout cas et je vous félicite d'être euh, choisi comme euh, parrain de cet événement et c'est avec beaucoup d'humilité que je reçois ces félicitations et ces encouragements Je pense que ça permettra aussi à mes amis et collaborateurs de continuer dans cette même dynamique, l'humilité et l'efficacité dans le travail. Et c'est ça, dans la concertation, qu'on peut arriver à concrétiser tout ce qu'on a comme objectif. donc ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di am mbégte xam leen te leen wax ne nag liggéey bi day soog commencé tout ce qu'on s'est dit on le fera et puis dinañu continuer liggéey te arène bi it ngeen xam ne yéen ko moom yéen a fay tëgg yéen ko war a préserver yéen ko war a yiir képp kuy yàq it yéen ko parce que am na ay caméra de surveillance ku fa ñëw di def lu mu war a def mais on peut le prendre ça aussi il faut que ngeen xam ne seen outil la balaa ko kenn di ndamoo yéen a ko war a ndamoo ku ko bëgg a yàq daf ñu war a am face ñu def ak moom pour que li nga xamante dañ ko doon wut ba am ko ñu bañ ko yàq kon denk naa leen ko directeur des infrastructures ngi ci en attendant ñuy nommé ña fa nekk denk nañ leen arène bi parce que yéen a fay nekk yéen a fay organiser. mbokk amateur yi waa axlu lamb xew-xew bu mag am na ay bis bu neex lutte sans frappe lay doon juróomi million lañ fa teg na ñëpp ñëw rendez-vous le janvier le 12 janvier lan moo xew association des promoteurs ñoom looy delloo ndukkal euh, le ministre des sports Matar Ba. bu dee mas naa ba léegi maa ngi ci làmb te mosuma koo dégg kon loolu loo xam ne la Sénégal yëpp ko war a teewe. man Mbaye Gouy Gui maa ngi fa le 12 janvier. stadium Iba Mar Diop na ñëpp ñëw. sargal ministre des sports Matar Ba. ci woo ñëpp le 12 janvier incha allah nag ànd si association des promoteurs waaw ñëpp ñu ngi doon gunge ah. di kontaan tamit ci promoteurs yi ñi nga xamante ñoo xool li nga xamante ni moom moo gën a rafet ñu tuddee kii nga xam mooy ministre Matar Ba. ñu ngi woo ñëpp di leen jox rendez-vous le janvier ci drapeau Matar.